salam alaikum wa kër bay Serigne dia Mansour ci Serigne Cheikh Diaw lañ jógee dik ci Serigne Khadim Diaw mu mel ne nit ñi baaxoo teewee bis bi noné la ko teewee nuko raw sax lay wax ndax mo lo ñu fi gis takku lool. waaye du té ñu jox Serigne bi micro bi mu gën ñoo léral li nga xamné moy solos magasi comme niñ jógee ci Serigne Cheikh Diaw ta non lañ ko fas top ci mbolam mboolem ak bay Serigne Diaw gi ñi nga xamné ñoo ñu top ci réew mi ak ci bitim réew. sëriñ bi bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu yéen waa kër gi yéen waa daara ji yéen waa fédération yéen waa daara yëpp yéen waa organisateur man suñu xaar mu jox ndongo Ndimboji maa ngi leen di nuyu te den siyaare ci bis bii nga xam ne moom lañ bokk nun ñëpp muy bisu Serigne Touba bii muy bis la boo xam bis bu màgg màgg màgg la tey siyaare Cheikh Mountakha Mbacké eh, te ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. di ñaane Cheikh mu Moustapha Mbacke mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ñaane sëñ Cheikh Diaw suñu jëwriñ mu yàgg fi lool te ànd ak wér ci wàkk sëñ Tuubaa Cheikh Moustapha eh, bis bi nag moom xam naa yéen moom sa sant rek la ñuy def ndax seen taxawaay rafet na lool ci bis bi eh, ni ngeen ko war taxaw yéen yéen ngeen koy taxawee bis bi nag day bis boo xam ne bis bu mat a góorgóorlu la ndax bis li boo xam ne mooy bis bi nga xam ne mooy bis bi gën a màgg ci bis sëñ Tuubaa yëpp ndax Sëñ Tuubaa moo ko waxal bopp moo ko ñaanal borom moo ko ñaan borom borom may ko ko mooy ijhal xayra ayaami yow ma alxaaka loolu Sëñ Tuubaa waxoon ñaan borom na ko maa ngi lay ñaan nga def bis bi gën a rëy gën a màgg ci samay bis muy bis bi nga xam ne moom laa daje yow te bis bi ci la Sëñ Tuubaa daje ak daje woon ak moom muy guddik biig guddik biig gii nu jóge ci la Sëñ fanaan si fii ci jumaa ji eh, kon mooy bis bi moom mooy bi bis bu màgg-màgg bu rëy boo xam ne jar na góorgóorlu góorgóorlu ci bu baax ci màggal ko suñ kem kàttan màggal gi nag mooy tax si bi sunnati rek na ma ko waxee woon fee yàqudu naa lil jannati moom gannaaw bis moom moom ku ko màggal ci sunna màggal ci sunna nee na màggal kooku ñu ko màggal ci sunna moo ni wommat ba tàbbal ñu aljanna màggal ci sunna nag mooy màggal ko ci xasaayid màggal ci alxuraan màggal ci jaamu yàlla màggal ci istixfaar màggal ci tasbihaat màggal ko ci lépp lu baax rek moo loolu mooy taasi moo bi si métti boole ko di bernde loolu mooy màggal ci sunna kon gannaaw loolu nag moom sant yàlla ci wax ndax yéen màggal gi yéen yéen a ngi ci ni ko borom santaane yéen a ngi ci kon noo ngi ñaan sa borom yàggal seen taxawaay te gën leen cee dëgëral ngeen gën cee yàgg gën cee sax ba ba keroog nu koy jógee loolu leen leen di ñaanal bañ jat fen fenn yàlla leen sëñ Tuubaa wammatal boppam ba tax na ci boppam ci barke sëñ Tuubaa Seex Mustafaa kon yéen moom ñu ngi leen sant bu baax kon nañ gurgurlu ci màggal gi suñu kem kattan ndax màgg gi daa doon màggal boo xam ne kat màggal gu jara sonn la màggal suñu Tuubaa kaay li nu màggal suñu Tuubaa loolu Cheikh Moustapha waxoon kaay li nu màggal Serigne Touba loolu nag moom ku la ko wax wàcc na ne nun noo des buñu defee noonu rek màgg Cheikh Moustapha ba nga ko wootee ba noppi neewoon na képp ku fanaan ci bis bii ku fanaan ci ci Touba gii de wàcc nga man maa des kon nag nan fexe ba at mu jot na ni wàcc rek sëñ bi des sëñ bi moom mën na boppam mën na juuba naag boromam juuba naag sëñ Touba kon nag nan góorgóorlu bu baax si dimbali seen bopp dimbali seen dimbali seen bopp nag mooy mooy mooy nekk ci li sëñ bi bëgg rek te li sëñ bi tere buñ ko jege fenn loolu mooy dimbali seen bopp kon nañ ci góor bu baax a baax a baax ah, képp koo xam ne daal si moom di jaw jaw ngay wuyoo ñi ngi ñaan ngir yàlla nga sax ci ak njub sax ci lu baax sax ci liggéey sëñ Tuubaa rek loolu moo xam ne mooy lii mooy li ñu jëriñ tee ëllëg na ci ñëpp góor lu baax a baax a baax yéen nag yéen waa fédération yéen waa yéen waa kër gi wax dëgg yàlla ak yéen waa communication seen liggéey moom rafetlu nañ ko lool ndax képp kër gi de lépp lu xaw ci kër gi wax dëgg yàlla taxaw ngeen seen kem kattan ni ngeen ci war a taxawee bàyyi ngeen seen i yitte bàyyi seen yëpp taxaw ci ndigalu sëñ bi ba keroog ndigal di mat ngeen soog a dellu seen yitte loola nag lu am solo la sant nañ leen gërëm leen bu baax a baax ndax ay ndaw ngeen mënoon ngeen nekk ci yeneen i mbir ak yeneen organisation waaye loolu defuñu ko yi ngeen a nekk ci gannaaw sëñ bi topp ci sëñ bi li sëñ bëgg ngeen ne ci loolu moom rek lañ xam ci yéen kon noo leen di sant baax te di leen gërëm ñaanal ngeen sax ci loolu dàkk di leen ñaanal ñun ñi itam ngeen di nu ñaanal ndax ñaanu teel bi dafa baax lool ci ab sëriñ kon yéen it dee leen nu ñaanal bu baax a baax nu nu sax ci li sëñ bi bëgg rek yàgg ànd ak sëñ Cheikh Diaw di liggéey sëñ Tuubaa rek moom leen bëgg kon nag ah, jërë ngeen jëf kon loolu daal mooy li nga xam ne eh, ci gàttal bu amul leneen looy wax eh, looy laaj daal loolu ci gàttal daal moom mooy li nga xam ne moom laa ci bëggoon a wax kon jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh amin hmm. amin hmm. amin amin amin ya rabbal amin ya mbokk yi mu mel ne ñoo ngi ci sëriñ Mamor Diaw Mansour ibnu Baye sëriñ Diaw Mansour soloy màggal gi mu mel ne kon nañu bàyyi xel bu baax ne ren la téeméeri at bi sëriñ Touba dëkkaale ak borom ak léegi tombeek bis bu sell di ajjuma kon sëriñ Mamor Diaw Mansour bisimilah ci solo ci màggal gi ak soññe yi. واشفني واعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من شر الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam di dellu si di fésal sunu cant ci sunu borom subhanahu tabaraka wa taala di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di sant Cheikhul Khadim di dellu si ci bisam bii nga xam ne mooy bis bi muy jee boroomam ci bis bii nag ci la doon ñaane borom naa na allahuma ijal xayra ayaami yow ma alxaak yow sun borom defal bis bi gën samay bis muy bis bi may daje ak yow te kenn ku nekk de ku am xel ku ne war ngaa ñaan yàlla sa borom subhaanahu tabaaraka wa taala mu def bis bi gën ci say bis muy bis bi ngay daje ak moom nga xam ne ci ngay amee ngërëmam ci ngay amee ak texe gu mat sëkk ci ngay amee mbégte loo xam ne ne naqar dootu ca topp kon bis bi moom la Seexul xaddim doon ñaane bis bi nag su dikkee li ñu ci war a def mooy gën cee góor bu baax ci njàngum alxuraan ak njàngum xasida salaatu ala nabi jàng xasida yi dellu si waat fàttalikuwaat jëmmi Seexul Xadim ja wa anhu ak ni mu nekk woon ci kaw suuf ak coono yi nga xam ne moom la dajoon lépp ngir bëgg a li jaam ñi kon loolu kenn ku nekk war na ko ko te jël ci sa wàll nag te xam ne Seexul Xadim ba mu jógee ngir xeetali la ngir dimbale la loolee yoon woowee mu xàll ne la yoon wi nag ki ngay jaar xàll naa ko ba mu set ngir nga war cee jaar war a xettali ko war a mën a mucc tey ak ëllëg yoon waa ngi nii jaar ci bu ko defee yoon woowee nga daan ci jaar ci ay ndig ci jëfee ndigal ak moytu ay tere yoon noonu rek mooy yoon wi kenn ku ci nekk war naa xalaat loolu nee koo mën a doon loo kawe kawe lu sa martoo rëy rëy rëy rëy bis dana ñëw sab ruux rocceeku ñu jël la génne sa néeg génne sa àll ba gas bam xóot ñu sol la wan la ginnaaw loolu ginnaaw xam nga ne loolu dafay ñëw ci yow war nga ko bàyyi xel lool adduna dafa yàggul te li mu yàggadi yàggadi am na ay junni junni at nga door nga door a ñëw te da nga fi jóge mu amaat ay junni junni at adduna bala laa bàyyi dañ laa dañ laa fàtte adduna moom damay wax ne kenn ku ci nekk balaa noppi ci yaw daa sawtul sax dañ koo fàtte te loolu kenn ku ci nekk mën na koo seet ci boppam kenn ku ci nekk rek mënoo lim sa ñaar fukki maam dong te kon ginnaaw mënoo li loolee xamal ne yow itam loolu ci yow la ñëw sa maam yooyee xamoo fuñ dëkkoon xamoo fuñ leen denc xamoo seeni bagage dara de jeex na seeneen jeex na seeni tur sax raaf na dem kon nag ginnaaw foofu ngay mujjee loolu ngay bàyyi xel sa digganteeg sa borom te góorgóorlu bu baax ci jaamu yàlla wéetal ko ci jamono bu nekk ak waxtu nekk bañ koo bokkaaleeg dara xam ne yàlla rek mooy yàlla te kenn du yàlla kudul moom jaar ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallama te xam ne foofu mooy yoon wi nga xam ne mooy yoonu mucc wi boo ko xamul nga tege ko ci yoon wi nga xam ne moom la Cheikhul Khadim rëdd yoon woowee mooy yoonu sunna rek képp ko ci jaar danga am li nga xam ne moom ngay wut tey ak ëllëg képp koo xam ne jaar nga ko nag ay ah, na la ndimbalal suñu borom ak yërmandeem dab rek ba delloo si la ji waaye day mooy yoonu mucc wi kon nag loolu ci lañ nekk ci suba ba léegi ñoo ngi si jàng alxuraan ñoo ngi yaa nga xasida di laabirante di saafonte di fàttaliku seexul xadim bisam bi mu fi jógee woon te xam ne ñun kenn ku ci nekk da nga fi da nga fi bàyyi ko ci loolu rek ci lañ nekk kon nekk te kat képp koo xam ne da jóg ngir di fàttali ko aw wàllu yu sunu borom eh, eh, borom xam-xam yi dañoo wax ne mel nga ne ku ko dundal waaw man axyaa li way fakka annama eh, axyaa waaw dafa mel ne dundalaat nga ko kon bis boobu képp koo xam ne yaa ngi koy fàttali ko loolu lu màgg la loolu sa xol dana ci dundee da nga xam ne day Sëriñ Tuubaa bi fi nekkee jaamu yàlla ak liggéey rek la fi nekk woon suñ mag ñi tim fi loolu lañ loolu lañ ko topp woon Cheikh Mansour Diaw ak mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo ko topp lépp ci jaamu yàlla lañ ko topp woon ak liggéey Cheikh Mansour Diaw da daan jaamu yàlla jaamu yàlla ko metti gu tar la daan jaamu yàlla boole ko liggéey ak jëfe ndigal ak fees de la xam-xam kon loolee noonee ñoom ñu nekkoon loola rek moom mooy dëgg kon saa mbir ma saa bu doxee di dox ba agsi ci ñun jeexital yooyee donc lañ war a jëlaat te moom lañ war a topp di nangoo jaamu yàlla te wéyee ndigal kenn ku ci nekk la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom te muy dëgg ci sa xol daal moom mooy yoon wi nga xam ne mooy yoonu mucc bi yàlla na ko suñu ubbil te leeralal ñu ko te sóob ñu ci te téye ñu ci dundal ñu ci deewal ñu ci dekkal ñu ci ca wet ca ngërëmam ju màgg yooyu yàlla na ko suñu borom defal ñu ngi ñaanal taalib yi yëpp itam kenn ku ci nekk fu mu nekk rek ñu ngi ñaan suñu mu defal ko ay xéwal yu doy sëkk yu mat sëkk yoo xam ne lépp lu mu yéene dana ko mën a def tey ak ëllëg jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dañ gën a góorgóorlu rek jerejeuf boole bop yi boole ñep rek ñu nekk ben rek jerejeuf liggey mu jëm kanam. señ Mamor jom Mansour ibnu bay Serigne Diaw soññee ama am solo comme niñu ko tambalé ci suba ci Serigne Cheikh Diaw baax ci señ Mamor jom mi mu melni ne yi amna solo bu baaxa baaxa baaxa a baax man dal Diaw ma nga ñaan yalla yag leen fi lool barke señ touba yagal ci seen kanam ba sa bu nu gesso gis leen ci barke selu khadim di ñaan yalla bis bi ñu teewe ko ay déwén déwén ci barke Seydina amad ci barke Sëriñ Tuubaa ak bis bu sel bi mu tombel di yow ma kon dal mbokk yi mi ngi noonu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh amin amin mbokk julit yi mbokk talibé yi ñoo ngi ci Serigne Bara Diaw Mansour ibnu bay Serigne Diaw Mansour di len xamal ne rek ñoo ngi ci programme bi ba léegi muy bisub cheikh ahmadou mbak gene fanma di bisub magal seigne modou moustapha mbake bi mu ëndee serigne touba cheikhul khadim touba mu dëkkaale ak boromam mu melni comme niñ juggé ci serigne bi juggé ci serigne khadim diaw noné lañ fas top topp njabootuk baay serigne jaw gépp ngir soñé ak gën ñoo léral solo magal gi serigne bara diaw mansour bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam di leen baal xaq ci di leen baal xaq di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal di ñaanal Serigne Cheikh Diaw Mansour mu yàgg fi loolu ci wér ak mboolem njabootu Cheikh Mansour gépp ginnaaw loolu tamit ñu ngi soññee rek ci lii nga xam ne moom la nekk di màggal sëriñ Touba te màggal gi suñ muul Moustapha woote woon te suñ muul Moustapha ba nga ko wootee tamit sëriñ Touba ci ndigalu sëriñ Touba la ko woote ndax sëriñ Touba moo ñaanoon suñ borom subhaanahu wa taala da ko defal ma bis bu gën ci samay bis muy bis bi may daje yow te bis boobu mooy bis bii nga xam ne moom la nekk ni di koy màggal kon nag ñu xam ne bisub sëriñ Touba la sëriñ Mourou Moussa moo ko woote woon ci kaw ndigalu sëriñ Touba te woote gi nga xam ne moom la ko sëriñ Mourou Moustapha woote woon te dafa wax ne roo yi la soxla ñu fanaan si Touba fanaan gi Touba tamit li ko wunti mooy dafa bëgg ñu jégal ñépp seeni bàkkaar te képp koo xam ne fanaan nga Touba fanaane ko ni nga xam ne noonu la ko sëriñ Mourou Moustapha diglee danga mel ne liir buy doo a juddu. ni mu ñaké bakkar non ngay ñaké bakkar loolu suñ mu soo moo ko na jubóo na ci borom kon nak loola dañ ci wara sant yalla bu baax ginaaw fekk nañ fi mu timit euh témiré ati serigne touba ñi nga xam ci mom la am ci kaw sous kon loolu timit euh, taw la muy sékal bu nga xamné ne jall kon ñuy dugg benen sékal ñi ñaan sékal bi nga xamné ci mom lañ dugg timit suñ borom defal ñi ci fan wu gudd bu ànd wér-gu-yaram ak xéewal yu bari yoo xam ne danañ ci mën a liggéeyal sëriñ bu baax ñu ciy soññee bu baax rek ci fu waay man di nekk muy jàng alquran di jàng xasida di def astaghfirullah yu bari di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci looman te ñu xam ne kenn defulu kenn kenn ku nekk sa bopp nga defal ñu mel ne koo xam ne ren ji buñ ko màggalee dootuñu ko màggalee ëllëg noonu lañ warale a ne ko defee rek li nga xam si moom lañ ci bëgg suñ borom mën nañu koo may ñu góor góorgóorlu ci bu baax di sant bu baax ñëpp tamit di sant waa communication bi nga xam ne ñoo fi ñëw ñëpp ci njiitul sëriñ Jaga Jaw di sant sëriñ Maam Góor Jaw ak mboolem ñi nga xam ne ñi ngi fi ñëpp daal ñi ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax tey ñaan suñ borom subhaanahu wa mu defal ñi tawféex ca nangul ñu suñu jaamu yàlla ca nangul ñi lépp luñ ci def ci mu nangul ñu ci fulul ñu ko ca làqal ñu ko fu yàq fu eh, yàq igut ci barkeb Cheikh Mansour ñi ngi ñaanaat Serigne Cheikh man Mansour ti mu yàgg fa lool ci wér ak mboolem njaboot gi ñëpp ñu ngi leen di ñaan suñu borom defal leen fan wu gudd ànd wi liggéey ak xéwal yu bari ñu yàgg koo fekke yàgg koo teewe te suñ teewee bu dikk rek teewee woo gën a rafet gën a neex te darage Cheikh mu mel ne kàddu yëpp benn la mooy ni ko Serigne Touba diglee ñoom noonee la ko ku nekk di digale ay talibeem ñu màggale ko ndax guddi gi daa yombut loo xam ne at ba at la te Cheikh Moudou Moustapha waxoon na ne ku ci fanaan si suñ borom def la ne gone guy dogu a nga ñàkk ay kon guddigi du guddigi go xamne guddigu ndaw la solos magal gi nak moy guddigi ak bëccëg gi waaye képp koo xam ne nga ko niko sëriñ bi diglé won moy niko sëriñ bi waxé loolu mom kuko def danañ am ci yow rafet ndortu ndax amna ñuko fekkon daw te fekkun ko ren kon ku xol ci ñooñu war gor gorlu ci guddigi bu baaxa baax di leen fàttaleel ne yéen ngi ak commission communication ci njité sëriñ Jaga Jaw ne ñoo ngi ci serigne ahmadou diom mansour ñoo ngi ci baana ñoo ngi ci serigne ahmadou diom mansour mu fasiyene yëkëti ay kaddu jëme ko ci soñé soñé bi nak moy solos magal gi comme niñu ko da défé kon serigne ahmadou diom mansour bismillah akay jërëjëf mbokki julit yi mbokki talibé yi no ngi sant sun borom subhanahu wa taala di julli ci mustafa alayhi salatu wa salam sant Seexuna cheikh amadou khadim di ñaan sun borom Seex Muhammadul muntaha sun borom dolli ko fa yagal te mu wer ay di ko ñaanal Seex Ahmadul Muxtaar xalifa Seex mustafa eh, mbake Muhammad yalla sun borom dolli ko fa yagal te mu wer ak mbooloom njabootuk mustafa gep di ziar Serigne Cheikh Diaw Mansour mi nga xam ne mooy sunu jawrin di sunu buntu ci kër Cheikh Mamadou Moustapha kër Cheikh Mansour Diaw di nuyu mbooleem njabootug Cheikh Mansour Diaw gi yëpp bàyyiwuñu kenn rawatina waa kër Baye Serigne Diaw Mansour ak fu ñu mën di nekk di rafetlu seen taxawaay bu baax ak seen pësteef ci liggéey bi nga xamante ni ne noo ngi ci tey nag di bisu mu Muharram di màggalug Seexul Xadiim ñu di ko màggal fii ci kër Baye Serigne Diaw Mansour ànd ak mbooleem mbokki taalibe yi ak mbokki jullit yi ci taxawaay bi nga xamante ni ne moom lañ koy taxawoo di ko dundalee màggal ji te muy ni ko sëriñ bi diglee ci njàngum alxuraan ak njàngum xasida ak salaatu bi nabi eh, ci ndigalal sëriñ Cheikh Diaw Mansour nuy nuyu mbooleem comité organisation bi ci njiital fédération bi ak section bi ak mbollem mm, njabot gi yep rek sen taxaway di len sante bu baax yeen wa communication sen taxaway yeen itam macha allah am solo te positif bi reyna lol ñu ci ñu ci ñu ci am mbekté lol di ci sante bu baax te gërem ci taxaway bi inshallah allah euh, di ko rafetlu bu baaxa baax mu mel bis bi mom dafa tombeek euh, ay ngëneel yu bare bare te nak lu jafé la ci ab murit te kenn ku ci nekk war ci bàyyi xel ndax téeméeru la at yombul te ren dafa dëppoog ginnaaw bi sëriñ bi ñibbisee Touba ak léegi mu doon téeméeri at loolu nag ku ko yàlla dogal nga fekkee ko war ngaa sant yàlla bu baax a baax waaye war ngaa soññ sa bopp ci fànn yu baree bari war ngaa saytu sa bopp ci fànn yu bari segg sa bopp ci fànn yu bari ndax la ci jiitu mooy ndigalul sëriñ Touba li si xamabul Moustapha jëfe jëfe indi indi indi indi sëriñ bi Touba euh, te sëriñ bi dana ko woon bu bis baa Touba la Touba la joojee nag Cheikh Mamadou mustafaa da ko def defin woo xamante ni ne noonu la ba noonu la ko sëriñ bi bëggee waññee woote nag ci bis bu rëy bii wax ne man de dañ maa wooteloo woote naa ku si wàcc nga ku wuy si wut wàccoon na ak yow ci biir loolu it Cheikh Mamadou Moustapha euh, bi mu wootee dëële ci lu bëree bari loo xam ne sëriñ bi da ko waxoon ne ko wa ahlu badrin wa ahlu bayti wa ahlu badrin ñi nga xam ne ñoom laa àndaloon bi may dem ci tukki bi ci géej gi ak mboolem fii nga xamante ni ne tubaab bi yóbbu woon nañ ma fa euh, bu màggal gi jotee dañuy màggal siwaat te képp ku ñu jonjool sa yaram aram na sawara da nga texe képp ku fanaan ci bis bii nii la Cheikh Mamadou Moussa waxoon ne képp ko fanaan Touba fanaane dundal màggal gi dundal guddi gi bo xeye man nga yëkëti si ñaar loxo mëna waat ne tàggoo nga ak ay bakkar mu mel na loolu yombul lu jafe la ku koy te doomu adama yi ñi ci ëpp loolu lañu ñaan suñu borom mana di dund te amoy bakkar ndax ku amuti bakkar moom man nga mëna waat ne sa àjjana leer na la ci topp it mooy jëfe ndigal li rek dafa neex ndax euh, Cheikh Ahmadou Bamba nun danoo dimbali ci lu bari waaye Cheikh Ahmadou Moustapha danoo dimbali ndimbal loo xam ne Eh, ndimbali bam ñu koy dimbali boba sunu wajuru tedd wa sunu yaakar ja bay Serigne Jaw Mansour ba serigne bi joxe ndigal li dafa togon ci jotaay ba manam dafa bokkon ci ñi nekkon ci jamono boba wuy ji woon wooteb Cheikh Mamadou Moustapha nga xamne ne bis bi bu ko bu ko bu ko bu serigne bi bu di magal day dem daruk Xuddoos magale fofa ci kër serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma yalla dogal nak bis new mu wax mag ñi ne len mbollem li ngeen wuti daru Xuddoos di fa magale ji bu ngeen ko defee fii da ngeen ko fi am looloo waraloon nag ñu daal di am pas-pasu bu màggal gi dikkee mboolem kuy taalibe mboolem kuy soppeeku mboolem kuy wëlëre nga yendu fii ci kër gi yendu sëriñ bi di ko màggal fanaan ko fanaan ko màggal yaakaar naa jamono jooju ak jamono ji ñu toll wute na lool kon nun li ñu war a gën a sant yàlla mooy war a gën a defaat njitte ci mbirum sëriñ bi defaat ci sunu sunu pësteef te xam ne kat dimbal ndimbal li nu am yombul ndax ñi war a ñi war a texe ñi war a tàggoog ay bàkkaar yàlla boole ñu ñu bokk ci ñi leen war a ganale ñi leen war a berndeel loolu war ñun dañoo war a sant yàlla bu baax a baax te am ci pëstéef te xam na loolu yombul te loolu it li ñu ciy dimbali gën a dimbali mooy nii ko sëriñ bi bëggee rek ñu defee ko noonu te ñi ngi ci mooy mbooleem loo xamante ni ne buñ ko defee gan ñi danañu bëgg danañ gën a sawar ci njàngum alxuraan bi ak njàngum xasida mi ak ñu gën cee bàyyi xel bu baax te xam ne loolu rek mooy li ñu li ñu jariñ ndax kat euh, ku am ku am ku am lu yombul maanaam ku am lu jafe lu ñëpp bëgg da nga ci danga nga da nga koy jox yitte te yitte dana tax nit jariñu bari na lu nit nit nit war a yitte woo war caa jariñu ñàkk yitte dana tax nam ca war a jariñoo day des lool waaye mel na ne kër gi moom jox nañ yitte ndigalu sëriñ bi jox nañ yitte jaamu yàlla jox na yitte mboolem jëf yi nga xamante ni ne sëriñ bi da ko soxla te loolu mooy la jëm fa suñ borom subhanahu wa taala muy lu mata a bàyyi xel ndax euh, def lu baax ba aduna soso ba léegi képp ku koy def bay bo nga xamante ni ne sa mbir day sa mbir day dox ba faawoo ndax euh, ña àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon xare mboolem xare buñ mës a xare ba am ci ndam mboolem xare buñ mës a ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loola du fay te ba àddunay tukki mboolem lu ab jullit jëf seen wàll da cay génn ndax ñoo taxawal lislaam waaye nga gis ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yàlla ñu ko suñ borom fayal mag ñi àndoon ak moom daana leen wax ne sahabatu rasul yi ñooy seen baay diine loolee nag kon ñun nañ jàpp ne sahabatu rasul yi ñooy suñ maam ci diine wala nun sax dañuy sañ a wax ne ñooy suñ baay ci diine ndax suñu wajur jamono jamononte na ak sëriñ bi ay at te laa yaakaar naa sëriñ bi moom ku jamononte ak moom ay at do do do bokk nga ci sahabatu rasul ya ña nga xamne ñom la ñom ñom ñom lañ doon seen bay ci diine kon jëfëndiko ndëgël ndëgalu sëriñ bi mo ñuy dimbali waye ci biir loolu suñu yaakaar ji nga xam mooy Cheikh Mansour Diaw ñu wara a xel ay mbiram ndax moom itam ren la téméré at ak ñent ginaaw bi mu laxo ak légui téméré at ak ñent kon batay nun dañu am benen xaas bu ñu wara def ab soñu bu wara tax ñu bayyi xel jokk suñu gëm yalla yok suñu jaamu yalla yok suñu pësteef suñu digënté ak sëriñ bi ndax Cheikh Mansour jaw lu bàyyi ay mbiram ba léegi nii ñu di ko tudd di ko dund mooy gëm gum bëgg sëñ Touba ak gëm gum ko gëm ak doyloo gum ko doyloo ak dann gum ne dann sëriñ Touba yaakaar ko ba pare nag bëgg nit ñi texe gëm sëñ Touba mu jàppale mu di leen ci soññ ndax koo xamante ni laata muy ñëw la am ngërëmal yàlla bi mu dikkee jàkkaarloog sëriñ bi la am àjjana ba mu jeex tàkk ba da wax ne moom day gëm wér na ko ne ku lu am àjjana moom Cheikh Mansour Diaw wax ne suñ borom ta damaa ñi ma war a àndal ñu may liggéeyal loola ji yombul waaye taxul woon nag mu ne yàcc na yasar woyofal jaamu yàlla danaan jaamu yàlla di dundal guddi yi di ko fanaane guddi gu jot di ko di ko def bàyyi sëñ Jaw Mansour daan ko defit di ja eh, yendoo liggéeyal sëriñ bi fanaane jaamu yàlla loolu Pastef boobu nag mu ngi si njabootug sëriñ bi yëpp kon yàlla na suñ borom taxawu noo ngi sant bu baax waa communication bi nga xam ne ñoom seen liggéey rafet na lool communication Diaw Mansour laay wax ndax communication euh, bi nga xamante ne mooy lëkkaloog fédération bi ak mboolem section bi ak mboolem daayira yi seen liggéey bi ak seen taxawaay yi ak seen posture bi nga xam ne amee ngeen ko ngir yaatal liggéey bi ba fu mbokkum taalibe nekk ci bitim réew ak Afrique mën a dund ak ñoom bis bi lii rekk la sëriñ bi bëggoon te mbokk yi Baye Sëñ Diaw Mansour daana wax ne lépp a ngi fi lépp am na fi lépp mën na fee am. te gis ngeen kàddu googu kàddu gu wàlliyu la képp ku fas yéene bokk ci ñi fi def lépp da nga am lépp képp ku fas yéene bokk ci ñi nga xamante ni ne ñooy gën a yëkkati kër gi gën ko taxawal yàlla xam na ne doo ñàkk dara ndax doy na sëkk sëriñ bi nangul la sag taalibe bu wootee nga wuy si bu laajee nga joxe la nga am boole kook di ko ñaqal kon mbokk yi bu ñu yaafus bu ñu tàyyeel yéen ñii fi nekk di di jël di jël di jël wax ji ak di ko filmer di ko photo seeni maam ak seeni baay ñoo daroon sëriñ bi ànd ak moom seeni mama daron Cheikh Mansour Diaw ba taxawal ci njaareem nga xam Cheikh Mansour Diaw ñeuk defar ke seigne Touba gi ci njaareem bobu bant jenn la doon wuti ca ginnaaw kuppentum mu sori lol keur gi amuroon ay matériel waye ak njàmbaareem ak mbaaxam tax mu defar ke seigne Touba ga ba ne booy dem na fa mel na mag dima won caisse ya fa ne amna ci caisse yo xamne doomu adama yi fa dugg mu dem mu ne ma bant yi di bant jana yi di sama mako fi sampoon te ba legi maga fa te bant yoy amna ren man nañ ne dana témer atak nangam ci ren ji loolu yombul Baye Serigne Diaw Mansour mo ñëk a Serigne mourou Moustapha kërug beyti gi defar fa ay wudi fas yu rafet da fetañ fa ay kees sakket yo xamanteni ni sakket sàkketi deux deux poids la yoy yombatul sakket dañu ko daan dagga ji mesere bobu kër gi li fi nekk ci matériel wul waye ak njàmbaar lu mu lu mu mayul nit du ko am don jambar jo xamanteni ni serigne bi kenn rewuko kenn ku kenn ku koy xol ku ne sa kanam nga koy xol kon damay faral di wax ne yéen ñi jàmbaar yi nga xam ne yéen a ànd ak ñun liggéey bi ku ngeen ko suuf seen biir jàpp gëm leen ne mi ngi seen gannaaw kenn nekkul seen kanam loolu moom xam nañ ko ndax li sëriñ bi bëgg noo ngi ci yàlla ñu suñ borom taxawoo kon noo ngi lay sant bu baax góor ba nga am beneen laaj. jërëjëf jaw sëriñ Ahmadou Diaw Mansour di koo xam ne soññee yu ama am solo la ni ko ñëpp defee mooy solos màggal gi màggal gi daal fi ne moom ku yar say nopp di déglu yor say bët xoolee xam nga niñ koy dundalee. mooy ni ko sëriñ Touba santaane woon ne bu ma génnee àdduna wax ca lam ca wax Cheikh Modou Moustapha Mbacke wax ko mag ñi ba léegi moom la ñuy wax suñ ay talibé kon yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp waaw sëñ bi jaw suñ borom defal la fan wu gudd ak wér gi yaram soññee am na solo lool ndax bu ñuy liggéey nga topp suñ gën a waa góor la ñu ñaq ñun ñoo ko jariñoo te yaa tax nu nu am xelum di ko def waaw góor moom boo koy dégg ci liggéey ku sawar ngay war a doon ku sawar ngay doon yalla nañu yalla defal deg ak top kon jaw ñu def ay ñaan rek serigne dam jaw Mansour ibnu Bay serigne jaw ñu tatan ko sun micro rek mu soññee waye fatali solo si gi bismillah jaw billahi minash rajim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi tey kon fii ci Daaru Xudus ci màggal gi nga xam ne moom la ñuy defal sëriñ bi di ci fàttaliku sëriñ bi ñu fes ci yéene dundal na comme ne ko sëñ Modou Moustapha mi nga xam ne moo ko njëkk a wóotu ni mu ko daan dundale ñu fas yéene koo dundale noonu waaye màggal gi ren nag dafa am beneen xew-xew bu ci am ndax ren la téeméeri at yi ci atu gàddaay gi boo ko xoolee ren la téeméeri at yi ndax sëñ Tuubaa mi ngi làqu woon ci mille huit cent trente mille neuf cent trente six mille ba mille quatre cent trente six loolu boo ko xoolee kon day téeméeri at ci gàddaay gi màggal gi nag moom di lu am solo xanaa liñ ci fàttalee rek mooy fàttali sëñ bi ak diglee sëñ bi. ndax waxtaan bi xam ne moom la ci sëñ Tuubaa mujj waxtaan mujj cee fàttali taalibe yi sëñ Maodo Lamine Diop Dagana bind ko ñu di ko wax xutba xutbatu wam sasin rek daanaka boo ca delloo rek dafay doy sëkk ndax sëñ Tuubaa da dafa fàttali bu am solo ndax xutba bu mat a jàngat la bu am solo la bu am solo la lool te mat a jàngat buñ ca delloo danañ fekk tomb ya ca nekk sëñ Tuubaa euh, defoon ko bisub samedi tombe woon ak euh, fukki fan. ak juróom benn ci weer wii moom la Sëñ Tuubaa mujj dénkaane waaye muy xutba bu am solo boo xam ne dañ ko war a jàngat lool ndax soññe yi ca nekk dafa am solo moo tax tey mu bu ko fàttali ndax Sëñ Tuubaa ni ko daan aadoo di defee dafa dañoo julli tàkkusaan dafa ne mbooloo mépp nañu daje biñ jullee tàkkusaan ba noppi mbooloo mépp daje Sëñ Tuubaa daan waaw tey la ñaata fan ci weer wi ñu ne ko tey la fan ak juróom benn di gaaw fukki fan ak juróom-benn ci tamxarit tàmbee ko gaaw mune ma ngi len di digal ngeen dal dal la njabot gi baye weur bi ak tukki bi ba ba gam wala sax ba ba gam wi di jeex seigne touba lim mu digle moy dal nañu tok ci yi dal baye weur bi ak tukki bi dan ah, xana lulu lu lu mënta ñàkk daan na ngeen jaamu yalla mi nga xamne boyal na len ngir ngeen jaamu ko ndax yi nga xamne dañ ko weddi ak bokkaalekate yàlla yi yàlla mu leen tënk ca loola waaye yàlla defal na leen tawfiix yéen da leen a libéré ngir bëgg ngeen jaamu ko kon nag na ko jaamu yàlla libéré na leen ngir bëgg ngeen jaamu ko bu leen ca forcé woon du ngeen ko man waaye moo leen ca moo leen ca libéré ngir ngeen jaamu ko libéré na leen ngir ngeen jaamu ko kon na ngeen ko jaamu daana waaye yàlla am na ci yéen àq ju ci xamal gi leen xamal yoon wi gindi leen xamal leen yoon wi nga xam ne boo ca jaaree da naan caw wuti xéewal goo xam ne dafay sax dàkk am texee goo xam ne dafay sax ba dàkk daana lan ngeen war a faye yàlla mooy xamal googu mu leen ko xamal waaw bu leen ko xamalatoon nag kon xamal gi mu leen ko xamal lu ngeen ko war a faye xanaa ngeen topp ko waaye yàlla am na ci yéen àq ju rëy àq jooju mooy xamal gi nga xam ne mooy àq ji mooy xamal gi nga xam ne xamal na leen ko yoonu bi nga xam ne boo ca jaaree yoonu texee di la sawara rek ngay jublu boole ko am gàcce am fitna toroxtaange goo go ne gu sax dak lay don yalla xamal len ko ba ngeen xam ko nga xamne bo boo ca jaaree mën a mucc ca lola mucc go xamne ne mucc gu mat sekk lay don yalla xamal xamal len lola bu len ko xamalatoon nak nu ngeen cey mucce kon xamal gogu len ko yalla xamal ak ji ak ji nga xamne mo mooy dox seen digganteeg yalla moy ngeen watandiko lola seigne touba Tuubaa digle am ne na ngeen fexé ba li borom di digle ngeen takk sen tànk li suñu borom di di tere bu len bu leen bu len ci bu len ci sen tank tegu mukk loolu la digle daan na nag waaye nag maa ngi leen di dénk ñaari masala yoo xam ne moom yi moom na ngeen na ngeen na ngeen ko na jàkk ngeen téye ko ak seen fukki loxo ak juróom ndax ba àdduna sosoo ba léegi ku gën ci la gënee waaye ku ku ku raw yit ca la rawe ku gën ca la gënee kam gën ku raw ka la ca la rawe waaye ku des ginnaaw it ñaar yooyu la sàggane ñaar yooyu moom ñaari masala yi maa ngi leen di dénk di ko gën a ferdali ngeen gën koo jàpp bu dëgër téye ko seen seen fukki ak loxo seen fukki loxo ak juróom mu ne ñaar mooy ngeen xam lu ba xam li leen seen borom digal ngeen teg ci seen tànk fexe ba seen tànk moom ca teggoo teggi kooti ngeen xam lu ba xam li leen yàlla tere ngeen fexe ba seen tànk bu ca tegu ñaar yooyu moom maa ngi leen koy digle digal bu baax a baax digle digle wax na ca biir ndenkaana bi ne leen maa ngi leen di digal ngeen farlu ci julli juróom ak saraxe ak ñaan sëñ Mat Lamin Jóob nee na lii la sëñ Tuubaa dénkaane keroog ca tàkku sant bi mu ko dénkaane ba noppi daal daal di dellu ci kër ga nag génnaatu ba timis bi timis jotee la génnaat ndeysaan daal di ñëw bi mu ñëwee biñ jullee timis ba noppi sëñ Tuubaa sax ab diir daan ana Mouhamadou Lamine Diop Dagana mu ne maa ngi nii mu ne ko acca jàngal suratul baqara ma dégg sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana tàmbali auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim jàng ba ca euh, ulaay ko xamal mu feewoon sëñ Tuubaa ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko melaw jullit ñaa ngi noonu boo bëggee xam melaw jullit ñu dellul ci aaya ja melaw jullit ñaa ngi noonu daan ko ni ma la ko mën a misaale nag daa mel ne ndab loo xam ne dafa ubbiku ndab loxo ne maanaam nangu na def loo ca def dana ca dem waaye nag loo ca def it da cay des ndeysaan li mu jubloo misaal foofu mooy nit ñi nga xam ne seen xol dafa ubbiku ca yàlla lu ñëw rek ki leer rek da cay dem da cay dem te loo boo xoolee rek xam ne kii leer fii leer a ngi ci mooy noonu la noonu laa la ko mu daal daan na ko continuer ndeysaan continuer eggaleel isit la ko wax dollil ma xala eggaleel mu eggalewaat ba ca wala waxuma ensemble xasimun mu ne ko taxawal mu taxaw mu ko melaw na fekk yaa noni bo beugé xam melaw na ko del jaay da ne ni ma ko mën a Mana daa euh ndab lo xam euh dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa melaw yéefar yi ni ma ko mën a moy ndab lo xam nang wana def waaye mënoo ja def dara ndax ndab li dafa teju lo ci sotti rek ci kubéer gi lay jaar jaar moy mooy yéefar mom yéefar ko war wala nga wax ko dara ba mu dugg ci ab xolam sun borom dafa kaske ab xolam dara mënu dugg ci ab leer da ngay sol rek waye mu na fexé ba ñu gëm ndaysan dal na ko daan na ko eggaleel mu dem ba ca euh, hum yasonruuna je mu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko melaw na fekk yaagi noni na fekk mom dal na ko la ko ndab lo xamné euh nangona def lo ca def dana ca dem waye dara du ca def ndax ndab li dafa bën lo ca def rek bo ubbee do ca fekk dara moy na fekk man na and ak yow di julli man na and ak yow di wor man na and ak yow di dem mak di def lepp waaye amul dara ci lu baax ndax ndab li ndax fi mu koy def dafa bën <laughs> nee na melaw naa fekk yaa ngi noonu mu ne na ngeen fexe ndeysaan mu ne sëñ ma lemi jëm na ngeen fexe na ngeen fexe ba bokk ci kële ku njëkk ke waaye bu leen bokk ci ñaar yi na fexe ba bokk ci ku njëkk ke waaye bu leen bokk ci ñaari yi daan na nag xaaral ma yee leen ci li sun borom wax yow mi noona bi maa unsila ilayka aw maa unsila min qablika yow mi noona bi maa unsila li ci sun borom jublu mooy alquran wa maa unsila min qablika li ci sun borom jublu nee na mooy téere yi ko jiitu acteurs yi ko jiite woon loolu lañ suñ borom jublu daana nag waaye dafa am xikma boo xam ne dafa nekk foofu ci wax jooju suñu borom wax yow mi noonu bi ma unsila ilayka wa ma unsila min xablik dana dafa am xikma bi ci bu ci nekk xikma bi ci nekk mooy suñu borom dañoo jublu ci aaya bu ci wax jooju suñu borom wax dañu cee jubloo tere par parloo comme ni mu xew woon ci yahudi ak nasaraan yi daanaka loolu question bi bi nga laaj léegi day jëm ci loolu par parloo lu yàqu rek par parloo ko yàqu dañ àndandoo nekk benn moytandiku par parlo comme ni mu xewoon ci yahood yi ak nasaraan yi na ko moytandiku Sëñ Tuubaa nee na na ngeen moytandiku loolu bu baax na ngeen àndandoo ngeen nekk benn kenn ku ci nekk la nga nekk ci lu baax suñu borom dafa yaatu ndax yàlla li mu yor ci lu baax dafa bari bul yaakaar ne yow li nga nekk rek mooy lu baax déedéet keneen ka la nekk lu baax la yàlla ci bopp moo bari la lu baax moo tax mu ne na ngeen moytandiku loolu yow li nga nekk lu baax la waaye keneen itam la mu nekk lu baax la waaye na ngeen moytandiku nag di par parloo ndax par parloo da yàq lu yàq rek moo ko yàq nañ àndandoo nekk benn loolu sëñ Tuubaa mujj a dénkaane àndandoo nekk benn bàyyi par parloo par parloo gi moom dafa bari lool am na ci tarixa yi fi ni waxuma la ci tarixa yi waaye ci ci biir kër yi sax da ci am loolu tam lu yàqu moo ko yàqu sëñ Tuubaa loolu la mujj a dénkaane na ngeen ko moytandiku loolu loolu loolu moom la dénkaane woon na ngeen ko moytandiku àndandoo nekk benn loolu mooy li nga xam ne mooy li ñuy jariñ tey mooy li ñuy jariñ ëllëg mooy xutba boo xam ne yaakaar naa bu ñu ko toppoon xaw naa gudd tuuti waaye ndénkaan yu am solo ak i fàttali ak i waaraate moo ci nekk te boo xoolee boobaak léegi téeméeri at la ci ren te buñ ko waxee day mel ne tay la woon kon loolu yaakaar naa bu buñ ci taxawee danañ ci mën a jàngatee yeneen ay tomb yoo xam ne yu am solo lay doon danañu fàttali la danañu jëriñ wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf sëriñ Dame Diaw Mansour ibnu Baye sëriñ Diaw Mansour di sëtub Seex Mansour Diaw mi àndoon ak sëñ jërëjëf Diaw soññee yi daal am na solo li ñuy ñaan daal mooy yàlla yàggal leen fii ñu yàgg leen a gis ci barke Sëñ ndax xel mu dal mënta weesu taalibe boo xamante ne saa boo xëyee janoog sëriñ bi mu koy wax lu koy jëme ci yàlla di ko ko digal ba pare nag jiitu ko ca. kon mbokk yi mu mel ne ba léegi ñoo ngi ci sëriñ Saalihu Jaw Mansour sëriñ Saalihu Jaw ragal yàlla sëñ bi soññee ak solo bis bi rek bisimilah. aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah hadaana li haza wa makunaana li naqtadiya lawla an hadaana allah mbokki jullit yi mbokki taalibe ñu ngi leen di nuyu nuyu jullit du nuyu bokki jullitam ñu ngi leen di nuyu nuyu euh, murit buy nuyu bokki muritam di leen di sargal bu baax di ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadul muntaxaa mu yàgg fi lool te wér di ñaanalit bu baax suñu sëriñ suñu jëwriñ sëriñ seex jëw Mansour moom itam mu yàgg fi lool te ànd ak wér di rafetlu bu baax. bis bii ni nga xamante ne si noon ngeen koy taxaw muy bis boo xamante ne si mbooleem murid yi ñëpp ñoo ko bokk ndax xam ngeen ne bis bi dafa nekk bis bi nga xam ne moom la fi sëriñ bi dajeeg boroomam muy bis bu rëy te bis boobu noonu ku ci nekk am na ko te ku ci nekk it mu ngi koy xaar te dana ñëw ndax dee moom du jaas kon gis naaw nag ku baax ki salal suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu ki nga xamne moy suñu buntu moñu gindi ci ginnaaw biñu réré mom moy sewul khadim bi bis bim fi joggé ñu diko ko wat te Cheikh al mustafa taxawal ko mi jambar ya ca taxaw gu am solo gu mat ndax koku mom ku mat la mbiram yep yi dafa mat bu ngeen taxawé ci ji diko diko diko diko di wat ñu and ko yeen ci ndigal Serigne Cheikh Diaw Mansour ci kër Baye Serigne Diaw Mansour bu ngeen ñëwee it dañuy sakku ay cadeau ci ñu wax ci dañ ci sawar lool ndax kat li suñu bis la suñu bis la ñoko wara taxawé la ci wara waxit ñoko wara wax lañ ci wara def ñoko wara war def luñ ci wara ñoko wara def kon sant nañ bu baax ci yeen seen taxaway yi rafet nañ ko baax ndax ni rek la li mom mom la ñaanal ci kër gi fuñ tollu rek. ñu gën a pasteefuwaat bu baax ca xam ne euh, ñu ngi ci yoon wi ku nekk ci yoon nag da ngay fas yéene dox bu baax rek te bañ a gestu kenn bañ a faale leen bañ a ragal leen bañ a bañ bañ a rus leen it ndax ab murit moom maanaam dafa war a am fu muy rusee waaye am na ci diggante boo xamante ne si waroo kenn waru faa rus ci ndigal a sëñ bi kooku moom gàcce rus amu fa rus a def defal lii sëñ bi man de loolu damaa jàpp ne loolu ab murit waru koo def kon lépp luy ndigal sëriñ bi rek benn ab murit warut a ci def ko wërta rusit ci def ko waaw kon lépp loo xamante ne si nag mooy tere tere tere loolu la ab murit war a rus loolu la war a jombale boppam ci di ko def kon nekk ci yoon wi di dox ci yoon wi loolu moo moo mooy mooy li nga xamante ne si mooy suñu soññee bis bi nag rey na lool rëy na lool ndax borom xam-xam yi wax nañ ci lu bari kenn ku ci ne xam na ko ndax euh, ginnaaw euh, sëñ bi buñ ko bi mu bi mu làqoo ñu jël ko indi ko Tuubaa rek loolu rek bis la bis la moom loolu rek bis la suñ mën suñ Modou Moustapha yi taxawu ci taxaw gu mat sëkk ba mu fi jógee sëñ Cheikh Mbacke ba ba ba nëgëni si ñëpp taalibe yëpp di ko def kon loolu bis boobu moom moom waxtaan ci moom moom moom moom ku nekk xam na ne bis mu am na solo trop moom loolu am na solo waaye dañuy gën a ñaax rek bu baax ci kër gi rek ndax rafetlu it bu baax waa fédération bi doxin bi nga xamante si ñu ngi koy dox ci kër gi ndax njëriñ la ci kër gi yokkute na ci kër gi yokkute nag lu bari loo xamante ne si kenn ku ci nekk rek xam nga ne ne kër gi fédération bi bi mu fi duggee léegi def na fi lu rëy loolu moom ku ko ku ko ku ko ku ko nangu ak ku ko nanguwut moo fi nekk rek ku ko xam ak ku ko xamut waaw waaye ku ci nekk rek xam na ne lii moom moom fédération mu fi woon a ñàkk moom yàlla suñu borom même ñu ko fi euh, moo ñu ko fi moo ñu ko jox kon nag mu nekk te lépp it bokkaat ci biir kër gi te ñoom ñëpp rek liggéey liggéey dong moo tax ñu jug dara ay caaxaan yëkkatiwu leen kon mbir la moo xamante ne si moom dañ leen di gën a soññiwaat bu baax di leen gën a ñaanal baax ndax sëñ maam Ngor mi nga xam ne moom moo ko jiitee moom bët bu set alxames bu jot dinaa ko déglu ci soññee yi yaakaar naa bu fekkee soññee rek moom soññe ne leen soññ na leen moom xanaa dañuy wax ne soññee du jeex waaye moom soññ na leen bu baax a baax a baax kon nag li nga xamante ne si moom moom la ñuy wax mooy mbir mu mu ci nekk rek comme ni ngeen koy doxale rek ngeen teg ko ci xam-xam ndax xam dafa raw am xel am xel reyna lol lool xam-xam moko raw dañu nduro nak boy gis ne da nga yaakaar ne xam-xam ak xel ño bok bokk bokku ñu wa ndax suñu suñu borom maanaam melokan yi nga xamantene ci mom la am ci ay melo xam-xam lañ koy melowee waaye kenn diko melo ci am xel ilmu la wax waaye aql al aql amul ci melo suñu borom yi sama amna ci amna ci muy deg suñu borom day deg wa suñu borom day xam waaye waaye waaye xalaat kooku moom mbindeef moo koy def mbindeef mooy toog di xalaat lu mu xamut waaye suñ borom moom lépp da koo xam kon kooku li melokaanam mooy ilmu mooy xam-xam waaw doomu aadama nag lan mooy lan moo lan lan la lan la war a am mooy mooy la boobu ginnaaw la mu dem wuti wuti wuti xam-xam ndax kenn ku ci nekk boo xoolee danga nga naan sa xel sam xel doy na la kenn ku ci nekk moom boo doon boo doon jaay xel boo doon jaay xel moom bu doon jaay Euh, yaakaar naa ne ñi koy jënd du bari ndax kenn ku ci nekk yaakaar nga ne yaa gën a rafet sam xel am xel sa morom waaw kon kooku moom li nekk waaye nag li ñu ëppantee mooy xam-xam ndax ku loo ëpp xam da nga xam ne kii mu ëpp xam-xam ku boomul xam-xam da nga xam ne itam <laughs> amoo xam-xam waaye nag moo tax suñu borom lañ lañ ko jagleel foofu mooy mooy almu lañ ko jagleel waaye kenn ko euh, kenn jégleelu ko euh, àq la ñaareel ba mooy sama nag li li ñuy wax xerewlu déglu di xerewlu loolu loolu mbindeef moo koy def mbindeef mooy toog di xerewlu dara ngir bëgg a déglu loolu ngir bëgg ko comprendre bër koo xam loolu mbindeef a koy def waaye suñu borom du xerewlu ñun dañuy déglu léeg-léeg nga am loo xam ne boo xerewlu doo xam lu mu doon mën na laa rëcc sax nga ne ah man de damaa bëggoon a dama doon li tax ma doon déglu di xerewlu ngir damaa bëggoon a lii ma am ma ma concentré ju ba mën ko déglu suñu borom du def loolu suñu borom sam'on la am dégg rek la am lépp lu mu dégg lu loo wax rek dégg na ko lu yëngatu dégg na ko waaw du xerewloo dara waaw kon kon foofu la nga xamante ne si suñu borom ni mu wuutee li melokaanam yi mu am ak ni ñuy wuutee ak melokaane doomu aadama yi teewul ne ne ndax bu ñun bu ñu nekkee mbindeef moom day nekk aji bind ñi mbindeef yi nga xam ne foofu foofu lay foofu lay foofu lay wutee moom yow boo nekkee mbindeef moom day nekk ki bind mbindeef yi moom ki bind mbindeef yi lay nekk moom waaw waaw foofu foofu la suñu suñu borom di di di di di taxaw. loolu nag maanaam ay kii la rek buñ ci doon baaxe rek waaye ngir xam ne nag maanaam góor góorlu rek mooy mooy lépp góorgóorlu leen ci ci liggéey bi fonkaat ndigal li euh, gën a takkaat laxasaay bu baax waaw te xam ne it maanaam ab murit moom amul lu dul ndigal amul lu dul kër sëriñam waaw ndax lépp looy looy jëggaane fu nekk rek maanaam romb nga ko sa kër. te nag lépp fépp fooy góorgóorlu di fa def leneen lu leneen ba yaakaar ne maanaam foofay ne ne da nga fa jëlee leneen lu dul doo fa jëlee leneen loo loo amul sa kër sëriñ ndax kër goo man di demit lañu fa amee la la la fa nekk mooy mooy digle dañuy digle di tere di am programme di ko di ko doxal bu dee fanaan léeg-léeg léeg-léeg ñu def ko programme bu bëccëg léeg-léeg ñu def ko programme guddi loolu donc moom ci kër yëpp waaw di xasida yi la ñuy jàng xa seen seenub sëriñ la ñuy waxtaanee. adiyé lañ leen di laaj ñi ko ñi di ko laaj bu sëñ bi woté liggéey ñu dem liggéey li moy li mo am ci kër yépp kon kenn ko ci nek kër ga la yalla wërsegal nga juddoo fa màgg fa gis fa say wayjur nekk fa kii fa li li li li sa li sa li li li sa fulla mooy nga fexe ba kër googu noonu ñëpp dégg ko ci ci dégg ko te sa alal ak sa sa jom ak sa fulla ak sa fayda ak sa ak sa ak sa kàtt lépp nga def ko ci wasalaamaaleykum wa rahmatullah rafet na amna na solo muy soññeek solos bis ak yëpp rek kon wa fédération bi war nañu xamaat bu baax fiñu tek seen tank soññe yaa non Serigne bakay jaw Mansour kon Bismillah. aawusu billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim. taala wabarakatuh mbokk julli yi mbokk talib yi noo ngi leen di siaré bu baax di jital siyaare bi serigne Mountakha mu ñaan ko mu yàgg fi lool ta and ak wër di ci teg ahlu Mansour jité ci serigne Cheikh jaw Mansour nga xamni moy khalifa Baye serigne jaw Mansour te jité njabot gep noo ngi leen di siaré bu baax ci bis bi te di leen ndokkale ci bis bi te di leen ci ñaanal bu baaxa baax gannaaw loolu ñu ngi sant sunu borom bu baaxa baax di fatali rek niñ ko daan defé ci waxtaan yu bari muy li nu fi indi te bayinu fi muy jaamu yalla sunu borom subhanahu wa taala ndax bis yu ak taxaway yu mel yépp dafa dugg ci biir jaamu yalla sunu borom subhanahu wa taala tay day dugg ci fatali ñi nga xam mo dox suñu digg ak suñu borom day dox ci ak soññee ak yok bu dox sunu diggante ak ñi nga xam ne ñoo dox sunu diggante ak yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di Serigne Touba Xaadim Rasul moom mi nga xam ne ku ko tudd rek da nga tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu yàlla dogalee ñu ñëw ci bis bu mel nii di ci waxtaan yàlla sunu borom cëreele na ñu fekke ko loolu ak cant la teyit ak soññee la bu baax a baax teyit ñu war cee xàmmee bu baax a baax liñ am teyit war koy waxtane bu baakha a baax ndax ñi ko umpelé xam ko ñi nga xamante xam nañ ko ñi gën ci jariñu ndax njariñ rek la lambo day melni kon ni ko organisation bi di defee wa communauté bi bis bi nga xamné moy bis bi sëriñ bi ñëwoon fi ci dëkk bi dañ ci jàngé né Cheikh Moustapha positif bam ci amone ak jambar ga kon dañuy tekti ñun dañu war nek nit ñoo xamné biñ yene ju sel innamal amalu bin niyaati yene yéene ju sel dari Dari am pas-pas bu deuguer nak pas-pas bu deuguer deuguer yow nak feñal sunu jambar nak pas-pas bu dëggee bu dëgëree rek jambar dari di dugg sama suwaan la defon ndax jamono ba indi señ bi fi jamono ji bobo neexul melut nii ne suñ jamono yi fit bi nga xam ni nii nit ñi am nañ ko pour mën ko indi sax fit mel ne wutu si amu suwaa sax pour nit am ko sa jafena dañ naan kon menn moom la ko sunu borom jagleeloon fit wu toll noonu mu mënee jëlee sëriñ bi njaarim indi ko fi ndax booba tubaab bi nga fi nekkoon te it booba xam nañ ni jamono ji méttee ak ni tàttar yi bare woon waaye mu am ak pas-pas bu wóor ak yaqin ak fit wu dëgër ak yéen ju sell ne sëñ bi dama koy yóbbu Touba na ko na ko ko digale woon muy indi ko fii moo tax ñu ciy jariñu tañ kon nag ñun ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu bokk ci njaboot gi Pastef boobu mu amoon te muy doomi Serigne Touba te Serigne waajal ko pëstef bobu ñun war nañ ko jàngé bu baaxa baax njambar ga amon njambar googu ñun war nañ ci jàngé bu baaxa baax ne ñoo wara nek nekk nit ñu am pëstef ñu am ñi yéene yéene ju sel tay am njambar gu mat ba xal luñu luñ dëgmal rek man ko man ko man ko agal nañ ko bëggee loolu la Cheikh Moustapha di moon ba tax yërmande jooju tour fi ñi ñëw nak ci attu kër Cheikh Mansour nga xam ne Baye Serigne Diaw Mansour yeen ñep fekk ngeen ko fi xëy Cheikh Mansour moom fekkuñu ko way Baye Serigne Diaw mom fekk nañ fi tay ñu xam Baye Serigne it taxawaay bi nga xam ne moom la doon doxee ci kër gi ak pastéef ba nga xam ne moom la donde ci Cheikh Moustapha Karim ak njàmbaar ga ak yéene ju sell ji nga xam ne moom la donde ci Cheikh Moustapha Karim loola mu koy doxal ñun ñëpp ñu teg ñu teg suñu bët kon day mel ne loolu suñ ko dee waxtaanee tey waa organisation bi di ko def day mel ne loolu lu am solo lay doon kon ñuy ñaax suñu bopp di leen ñaax bu baax a baax di xam ne fuñ mën di nekk nañu dox ci ndigal te xam ne ndigal moom mooy caabi bi nga xam ne mooy ubbi lépp lu am njariñ lii am njëriñ rek ndigal moo koy ubbi kon nag caabi jooyu su fekkee suñu borom dogal na ñu yor ko dañ ciy war a góorgóorlu bu baax kon nag ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi liñ leen di mooy ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax fa seen maam ya jaaroon teg fa seen tànk seen bàyyi jaar fa ñu koy teg ñu teg ci seen bët kon ñoom nañ gën a góorgóorlu bu baax a baax teg ci seen tànk te xam ne kat kër goo gis mbooloo ma bari wala mu am luñ fa yéem ay doomu aadama rek ka fa def te doomu adama yu ànd nekk benn képp ñoo ko fa def liñ ciy wax nag mooy li may wax mbooloo dafay bari léeg-léeg ay xëy na ay réeroog yéen demee noonu di ci am waaye mbooloo dañuy wax lépp loo xam ne waxtaan nañ ko ba jubóo ca donte xale bi gën a tuuti sax moom lañ jiital kooku des ko war a topp te xam ne loolu mooy dëgg ndax mbooloo moom doo buñ toogee di waxtaan doonul barab boo xam ne dañuy joxe ndigal barab wecconte ay xalaat la te xalaat bu rafet fu ne la mën a jóge xalaat bu rafet na fu mu jógee su ñëwé su féké ne ñëpp dajé nañ ci këgëna gën a nekk xale te ñëpp maas yi and su boba kooku mëna jité jiite té ma day dox niñ ko bëggé ànd gi nekk ben rek moy tax ñu mëna and bu baaxa baax té liñ bëgg ñu mën ko songu ñu mën ko daan niñ ko bëggé kon ñi ngi sant yalla bu baaxa baax té it ci bis bi nga xamné ne ñu ngi féké di ci ñaan sëñ Cheikh Diaw Mansour bu baaxa baax mu gën fee yag bu baaxa baax kon dal liñ wax kaddu yi daal kaddu soñé la ak kaddu yu gatt yo xamné dal dañ don doon feñal suñu yeen rek ci bisu Cheikh Moussa bisu Serigne Touba bi nga xamne Cheikh Moussa indi won nako fi fii Serigne Cheikh Gaynde Fatma jëmmal ko ba agsi fi te baye Serigne Diaw Mansour kër gi nga xamne di kër baye Serigne Diaw it mom mu jëmmalon ko fi ba ñun ñi ñëpp ñu ci jarign kon dal lañ ci wax ñi ñaan bu baaxa baax suñu borom mi nga xamne mom mom lepp moy borom lepp lepp luñ fi yene suñu borom yalla nañ ko fajal ku fi indi jangoro yalla nako suñu borom safara ku fi indi aaji yalla nako suñu borom faj salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh waaw sëriñ Serigne Mbacke Diaw Mansour mel ne kàddu yëpp benn la kàddu yëpp yëpp yëpp benn la mooy soññee rek ak xam ne soloy bis bi kon ku yeewu ku nekk guddi gi war nga ca def loo xam ne bu jàllee doo ko rëccu war nga cee xëntewoo jiiroo tam ba bu jàllee mu doon guddi goo xam ne danga ci jekk danga ci sete waaw wasalaam. fii ci soxna Soda Diaw soxna Soda Diaw nga xam ne. ibnu bay Serigne Mansour bintu bay Serigne Diaw Mansour setup Cheikh Mansour Diaw mi andone ak serigne Touba mu fasiyene yekati kaddu soñe jëm ci solos bis bi bismillah soxna Soda Diaw. assalamu alaykum rahmatullahi taala wa barakatuh mbooloo mu tedd ngi leen siara yeen yéen ma ngi leen di leen balu àq te ko baal daanaka moom man damaa mënut wax waaye li li ñi fi jiitu li ñu wax rek doy na sëkk waaw xanaa di ñaanal sëñ Cheikh Diaw mu yàgg fi lool ci wér mu yàgg ci gannaaw ci wér lim naa la seex Cheikh Mansour lépp liggéey ko ci am ànd koog moom waaw kàddu yi nag kii ndax man damaa mënut a wax ah xanaa soññee rek nu ànd rek nekk benn góorgóorlu rek nekk benn waaw nan ànd nekk benn loolu la sëñ bi bëggoon bàyyi sëñ jamoom la bëgg sëñ Cheikh jamoom la bëgg waaw buñ dégg dara buñ xool dara buñ jaltu gannaaw waaw nañ nañ dem sa kanam rek ndax yoonu bu bàyyi sëñ jamoom sa kanam dana jëm waaw góorgóorlu leen bu baax bu leen dara kii bu leen dara boole waaw bu leen dara boole nañ ñëpp góorgóorlu bu baax waaw ñun sëriñ seet ni góorgóorlu bu baax waaw ndaxte yéen moom lu lu lu xew rek yéen luñ jëm man ko rek yéen tax waaw kon nak yalla ni yalla defal gudd fan ko and ak wér ak wërsëg ñi nga xam ne buñ laajaat si yoon señ bi rek ngeen man ko rek barke señ toa ak barke Baye señ Jaw Mansour man nak dama mënut wax way wax deug sant na leen bu baax gërëm na leen nit wax deug yalla groupe bi ni mi doxee rafet na lol ci man waaw nañ topante rek and nekk ben di ndo di dóorandoo waaw loolu daal bu ñu ko defee rek mom señ bi amuk bëggam ñu am suñu bëgg waaw lol dal mo bëgg bëgg señ bi kon nag nañ ci góorgóorlu sëñ bi amul bëggam ñu am suñu bëgg waaw loolu rek man moom laa si amal lu may wax yal nañu yàlla jàppale man lafal cat ak saytaane jërëjeen jëf bee ñu am jom am fit ndax jigéen la joo xam ne fuñ teew fu nekk mu saa bu nu xoolee ci suñ kanam jaw suur ma nga fa taxaw soxna Soda Jaw mu mel ne fu sëriñ fu sëriñ Seex Jaw teew ak fu mu waroon teew te teewu fa yëpp moom day maasale lépp moom daal fu ñu ko gisee sunu xel dal te ab taalibe nag loolu dong la ab sëriñ loolu dong la taalibe bi fu mu gisee sëriñ bi na xel mi dal waaye sëriñ bi tam saa bu wootee taalibe teew dana tax saa bu xoolee ay taalibeem xelam dal muy gën a rafet njortu te li ñuy yóotu bala ñu cee jot dëgg dëgg dëgg faaw ñu téye suñu sëriñ sii xam liñ yor mooy lan comme ni ko suñ bàkk waxee nañ xam bu baax li ñu yor mooy lan ba bu ëllëgee ñu bañ a layoo dara barke Sëriñ Tuubaa muy soxna Soda Diaw Mansour wax ji gàtt na waaye matale na am na solo ndax buñ gisee sa jëmm rek macha allah suñu xel dal jërëjëf commission communication ñoo leen toppal programme bi ci njiital Serigne Ndiaga Diaw waaw fédération bi ñi ci réew mi ak ci bitim réew ñëpp bokk yam ci liggéey bi lool lépp njàpp ndalu communication bi la ñi ngi ànd ak Serigne Ndiaga fii ci Touba Darou Khoudoss ci ëttub Cheikh Mansour Diaw te noonu lañ koy jàppoo ba suba ba sëriñ bi def ñaan incha